asalaamualeykum mbokk yi ndigal jib na fan la jóge ci sunu sëriñ fan la jóge sunu soppe Thierno Bachir Tall suñu waxee Thierno Bachir xel yépp dem ci fa tabaarakallaa ne mooy xalifa maam Cheikh Omar Foutiyou Tall waaye ndigal li fan la jëm nag sunu wóolëre sunu xarit imam raatibu Scat Urbam ki nga xam ne nii mooy responsable moral safinatu saadaati kooku mooy kan Thierno Hamidou Bane lu xew mooy ñetti fan yoo xam ne moom la tegle ngir diine ajjuma fukki fan ak benn samd fukki fan ak ñaar dimanche fukki fan ak ñett ci weeru novembre muy ñetti bis yu ñu tegle ngir diine jour bu njëkk bi muy le onze di ajjuma bu ñu xëyee rek tàmbali njàngum alxuraan ak zikar loola lañuy jàppoo ba ajjuma jot ñoo laf lépp dem julli juma bu ñu jullee juma ba pare am na ñu temps bu gudd diggante boobu diggante juma ak tàkkusaan bu ñu jullee takkusaan ba pare lal mbalaanu xadratul juma muy alhayla la eh, al jumaa loola mooy nekk ajuma bi bu ñu xëyee comme ni mu ko waxee ci samdi bi di eh, cérémonie officielle bi tabarakallahu bu ñu xëyee Ceerno Hamidou Yorobaan ah dalal gan ñi tatagal leen ba yàlla dogal tabaarakallaahu heure bi nga xam ni war nañu def conférence bi te conférence boobu li ci ëpp solo Thierno tànn na ko ginnaaw bi mu ci diisoo ak ñi mu ko seqal muy thème boo xam ne bu intéressant la muy paix et sécurité facteur de développement. tabaarakallaahu boo gisee thème bi ni mu ko tànnee nga xam ni njëriñal jaamu yàlla yépp la ndax ni xaaj ma si la waxee moo ci nekk. moo di Thierno dafa tënk thème bi ci wolof wax ni jàmm ci la lépp xaj ah, nit ku nekk nag sa lépp ñaara ko tënk dirhamun lil maash wa lil maad dërëm boo dundee tedd teral ci say jaboot ba doo torox ak yiw woo dawal ci sa bàmmeel ëllëg boo ko fekkee doo taxawaalu yi ñaar ñépp nag ci àddina lañ koy fàggoo ñaari ñooñu nekk moo ëmb suñu lépp te yii ñaar bu jàmm amul kenn du ci mën a fàggu benn su jàmm amul kenn du tala liggéey su jàmm amul kenn du tala jaamu yàlla kon loolu nga xam ni mooy tax nit ñi tal liggéey te liggéey mooy développer réew loolu nga xam ni mooy tax nit ñi tal seen boroom te tal seen boroom mooy joxe sécurité mooy joxe dal tabaarakallah sanul xaaliqiina kon lu am solo la su ko defee moom mooy thème bi bandiraɓe son nani nduɗo salminandu ko salminandu diiniyankewu ko salminandu fuutankagal ko salminandu tawi ko ummide yamirore jinnaɗo men kalfinaɗo galle hono ceerno bachir tall e ummorade e jinnaɗo men elage hamidou yero ɓan nde tawno nde kala e saaha mboɗo heewi so allah itti ko wela tottimo wela jiiɗi ɗum kala ne hani welede ɗum ɗiɗo ñalawmaji min gummani ko ñalawmaji diiniyankoji woni ñande sappo e goho kala nan ɗo nduɗo noddandu diniyankeeru ko noddandu ma toɓɓere yewtede e nder nduɗo noddandu islamiyankeeru wi ko jam e ndenka ngam ɓamtare duumidi faya koye galle alhaji hamidou atumane dem bocara ɓuuro lollirde ceerno yaro eɗen gandi ko on woni mo mbiɗen e fedde wiyetede safinatu saada on dayira kanko woni responsable moral wadde ko kanko e dayira makko o no ɓe potiri ni wonɓe e nder leydi ndi dayira o ne yaaji haa to caggal leydi kamɓe ngoni bismitoɓe yimɓe ɓe e oɗo ñalawma kamɓe ngoni jaɓɓotoɓe yimɓe e oɗo ñalawma koni holi jaɓɓeteɗo bandiraɓe julɓe enen fof ndenden jaɓɓoɗen halifa meɗen moƴƴo meɗen gando meɗen ceerno bachir moutaga ɗa ha cheikh moural fouti radiallahu taala anhu amadou ɗum togay ndax yifima mbo hase ba ñëw rek noo ko moomal sunu bopp ceerno mooma ko daf ñuy jàppale rek keneen ku ñëwi daf ñuy jàppale kon nag ñun mbooloo mi cité bi nañ leen pare génn génn néeg yi dalal gan yi génn kër yi génn dalal gan yi ndax ñooy priorité actuellement nii ñun taxaw nañ ci bu yàgg yàgg yàgg ñëpp pare nañ defar nañ néeg yi bale nañu defar néeg defar kër yi ñëpp génn incha allah pour dalal gan yi. damay ñaan ñi nga xam ne rek am nañu yéene wuy si borom bi tabaaraka wa taala kantanal leen ñuy wuy si nañu lu ba teel a ñëw ndax tarim alquran dafa am solo déglu alquran déglu yi nga xam ne mooy ndénkaane yi fi rot saafonte si ak sa ay mbokki jullit dafa am solo kon képp koo xam ne am nga yi pas-pasu ñëw rek yal na yàlla yombal ko te nga teel a góorgóorlu teel a ñëw teel a teewe si mbir mi ñun ñëpp ñu bokk ànd ak yar ak teggin taataan si li nga xam ni mooy njëriñ li nga xam ne moom lañu ñu fiy di wax alhamdulilah ndax woote bi at mu nekk at yu wees yëpp ñu ngi koy woote di ci am ndam kon nag ren itam ñu ngi soññu nit ñi muy waa cité Hamo Grand Yoff waa Scat Urbam waa cité Kër Xaadim ak quartier yi xam ne ñoo ñu wër yëpp. nan ñëw nin daan génnee ngir bés yi nga xam ne moom lañ dëgmal ñu si ndam ndax ndam li mooy sunu njariñ ndax jàmm rek la nit di ñaan toog nag yàlla fi yàlla lawal jàmm so on jii nde ɗo jonde oɗon gandi jonde nde kono ardiɓe ɓe mbini ko jonde wondude e yamirore holi jamirɗo yamiri ko mawlana cheikh mouhamadoul bachiru taal al khalifatul am lil haji omar al fouti radiallahu taala oɗo ñalawma mbatten ko kanko yamirno ɗum hanki kanko yamir ɗum hannde o waɗi heen duwaw hanki o waɗi heen duwaw hannde hono no kewmi wiide ni enen alaa ko jogiɗen alaa ko ngannduɗen alaa ko gandal meɗen ko e barke gandal makko jogogal meɗen ko e barke jogogal makko ɗum noon en noddi banndiraaɓe julɓe fof yo ngar wallude en jaɓɓanade en ceerno meɗen ceerno bachir muntaga taha cheikh omarou fouti radiallahu taala anhu ñande aset sappo e ɗiɗi ko gonga ni sappo e goo o ko ñalawma moƴƴo ko ñalawma deweteɗo allah ñande sappo e tati ɗi ko ñalawma moƴƴo saabu ko ñalawma safara kono ñande sappo e ɗiɗi nde noon woni ñalawma ceerno bachiru ɗum noon bandiraɓe fof yo ngar e keewal assalamu aleykum wa taala wa